bismillaahi rahmaani rahiim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbaxal mulku lillah walhamdulillah wa laa ilaaha illa allah wallahu akbar allahumma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 tabaarakallaahu sunu bind bi weesu nu tolloon ci tarxiib tarxiib mooy alxuraan xemmem loo nit ñi ci ñu takk mu dég leen ci ay yëf sunna si yonente ba sallallahu alayhi wa loo nit ñi ci ñu takk mu dég leen ci ay yëf jigéen ñi mu dég leen ñoom tam ay yëf ci bu ñu sëyee góor ñi noonu te itam lam leen ca dig borom bi lu mu digee def ko salawaatullahi salaamu alayhi moom tam foofa jaar ca lef mooma lislaam bi mu ñëwee te gis ne mbirum denc muy mbirum jëkkër ak jabar walla góor ak jigéen gis ne àdduna ngi dox ci loolu sharia day ñëw yoonal loolu ba ba mu nite ndax nga demee ca bàyyi ma ya ña ngi koy def waaye nitewut waaw ña ngi koy def waaye nitewut nit nag ñu bëgg mu nite moo tax la ca ceddo ya daan def aljaahiliya bi lislaam ñëwee dafa jubbanti ya ci jara jubbanti bàyyi ca ya nga xam ne yàqut walla jubbanti jëru ko waaw ndax jamono ya nga xam ne lislaam ñëwagut loolu lañ tuddee ceddo loolu lañ tuddee ak ceddo jamono ya lislaam ñëwagut na dencante meloon bu lislaam ñëwee du ko bàyyi noona mu mel ndax sallallahu alayhi wa sallam ñiy jàng am njàngaleem te dégg ko su ñëwee ci mpénc lu fa jag du wax ni jagut parce que defuma ko <laughs> day nangu ne jag na def leneen moo tax alxuraanu karim boo ci demee gis mu wax lu rafet ci Muusa wax ko ci Isa wax ko ci Nuuxun wax ko ci ku ne ca ñoom loolu mooy lii doxalum pénc mooy lii rafet nga ne rafet na boo ne boo nee li rafetut rafetut ñu gëm la ba ñëw ci feneen lu mel ni politique ci sunu pénc boo xasee am adversaire lu politique lu mën a def nga ne rafetul waaw rafetul rek rafetul rafetul léeg-léeg ma dégg gaa yi wax sa xalaat ku ci wax ne léeg-léeg nga génne ci ndox mi mu ne yàgg may fëndal ma ne aw génne ci ndox mi mu ne yàgg may fëndal waaw ba tax bi ceddo gi di am maanaam bi lislaam ñëwagut dafa am lu ñu daan tudde alxidna xëdd na mooy nekk ak koo tëkkut waaw ngeen nekkub diir loolu moo tuddoon xëdd na wala muttaxizaati axdaan la ko alxuraan waxe woon moo tax ngoro yu yàgg yi loolu gone wax génn bu yàgg lislaam ne déedéet loolu jaahiliya ñoo ko doon def yéen bu ngeen ñëwee ci lislaam bàyyi leen ko bàyyi leen ko léeg-léeg wolof tudde ko defe naa baatu nekkaale bi lislaam ñëwee def nepp teg leen ko fële bu leen ko jëfandikoo ci ku gis koo bëgg demal ci ay waajuram buñ la gàntalut may la buñ la gàntalee nga dem ci keneen waaye su fekkee danga nga caa nekk am at jàpp ñaari at ngeen sori ca wax ja sori ca jëf ja ku nekk door yëgal say waajur tàqali kooga dana métti koo kooga dana yàgg koo kooga dana saf loola ñàkk déggal sharia li mu wax loolu moo koy indi te mooy ngoro gu yàgg ngoro gu yàgg lu ñuy wax nikaawul xidni ngoro gu yàgg ku góor ka nekk dem ak ñëw rek waaw ku jigéen kay dem ak ñëw rek ñu dem ak ñëw rek parent yi dañuy seetaan parents yi dañuy seetaan bis boo ñëwee bëgg def fulla nag ñu dàq la waaw moo tax loolu li ci lislaam jàngale buñ ko ci defee bala ngaa joxe loo munta nangu waaw lii am am luy lii am am bu fekkee dangaa ñëw bëgg nga wax ne bëgg naa ñu dàq la ci bis ba du metti waaye soo ci nekkee ay juróom-benni weer nekk ca fukki weer ak ñaar nekk ca ñaari at door na nga yëglu buñ la gàntulee mu métti ci ki nga nekkaloon buñ la gàntulee mu métti ci yow waaw loolu parents yi buñ ko seetaan waaye ñi nga xam ne ñooy ngoro it buñ ko doxaliwut noonu rek la ciy mujj noonu la lu jiitu lislaam amoon na ngay ngoro dugg ko génn rek waaw di ngoro ko dugg ko génn rek mu yàgg lool waaw léeg-léeg ñu ne dañuy seet jikko yi <laughs> waaw dañuy seet jikko yi ci ay jikko yi jikko yi sunu jigéen bële ca rajo dunia waaw mama ba yàlla ko yàlla yokk nee na bu ngoro di am ku ci nekk da ngay nëbb sa jikko yi nga xam ne jagle woo ko nee na moog ñiy xëy ci entreprise ak société yi di journalu ñoo ko yam ñoo yam da ngay nëbb sa sikk yépp waaye bés bu takk amee ba ngeen doxal un mois jàpp deux sikk ya nga doon nëbb day ñëw waaw moo tax nee na ànd bu yàgg boobu ci turu seet jikko ne jëru ko loolu mu wax nag loolu la lislaam wax wala mutaxizaati axdaan bi lislaam ñëwagut bi lislaam ñëwagut am na lu ñu daan tuddee albadal bi lislaam ñëwagut albadal mooy ñaar ñu defe ne ñoo moom jigéen ñi kenn ka ne damay lay jox ki ma yor nga jox ma ki nga yor ma yokkal la loolu mooy albadal waaw jox ma ki nga yor ma jox la ki ma yor te yokkal la mel ni tey rek <laughs> ndeysaan ma nekkoon euh, entre parenthèse dégg ngeen ma nekkoon jëkkëru nogay <laughs> nii mu mel nii ma ne jenn waay kaay ma jox la yi te jox la trois millions <laughs> nga jox ma ki nga yor waaw loolu di lu bi lislaam ñëwagul loolu dafee nekkoon moo tax yonent bi yàlla na ko yàlla fayal yonent yàlla muhammad yàlla na ko yàlla fayal waaw moo tax daal lim defal penc mi rëy na lim defal penc mi kër yi yii la fi fekkoon wax naa bu njëkk bi bu ñaareel bi ci laa nekk nii waaye xam nga ne góor gu ne góor ni moom jox ma ki nga yor ma jox la ki ma yor te teg la te te te waaw te teg la waaw kaay ma jox la nogay nga jox ma ki nga yor waaw man jaral na ma ma teg la trois millions <laughs> ndax maa yor ndogo yi mu ñuul ñaaw gàtt jëbërëy leex yërëy lu mu solo mu ëpp ko te munta baase <laughs> munta togg baase ndeysaan yal na yàlla yërëm sama mbokk moon ca ceesuwaay waaw amin mbokk mu de génn àdduna ci fan yii ndeysaan waaye tubarkalla góoru ndogo yi rekk laa bindoon ca numéro ba waaw bu xëyee rekk ne ma nogay nangam maak moom tubaarkàlla yal na ko yàlla yërëm waaw ku baax la woon euh, loolu lu jiitu lislaam kon amoon na ci pénc mi suñu yaay ja Aïcha radiallahu anha te bokkoon ci soxna yi nga xam ni sallallahu alayhi wa bi mu leen di denc ci wàllu social ak ci wàllu enseignant enseignement la ko denc ndax aleyhi salaatu salaam ñeenti xeeti soxna la denc ñeenti xeeti soxna la denc bu ci am bànneex amut ñeenti xeeti soxna soxna yii daf leen denc ndax social soxna yi daf leen denc ndax politique soxna yi daf leen denc ndax taalim muy jàngale waaw lu am solo la soxna yi mu doon denc waaw ngoog waaye su ne Aysa muy xam ngeen ne li ngeen dégg mu koy jàngale ca njàngale ma denc gi ko yonent bi denc njàngale ma nga ca waaye social ma nga ca bu ñeenteel bi mooy denc soxna ngir tashriya maanaam ngir ngir yoonal dara mbaa tere dara ñeenti xeet yi la xam naa mi ngi ci kanam ci bind yi incha allah moo tax kii tëj denc soxna ngir bànneexu bu doyalee bacc mm-hmm. wala bu xel ma dalee mu bàyyi waaye kii denc ngir social wala kii denc ngir politique wala kii denc ngir enseigne enseigner je pense que noonu le professeur <laughs> waaw walla kii denc ngir ngir ngir constitution constitution lañ ko tuddee xaw ma sax nuñ ko tuddee euh, jubbanti leen ko ñeent yooyu la woon kooku bu dencee sox jabar mënu ko wax lu ko naqari mbaa mu def ko ko waaye bu dee kuyut bànneex ku la ne tee ngaa changé mbax na sax bis boobu doo añ am na góor ñoo xam ne <laughs> boo génn kër gi ñu gis ne sa mbaxane mi dafa dafa froissé mba da tilim nga ne ko changé mbaxane mi bis ba du añ merab merab merab mer baax na waaw walla nga ñëw ci bàyyi moor xujj ne ko waxal ci sama jëkkër ji mu ne lu xew lu xew mu ne moom ko dama ko laaj saabu fóot rek euh, mu mer bàyyi moor xujj woo ko farmer ma yokk mel ni ku su tuur pétrole cib taal cee tët tët tët yàlla nu yàlla dimbali suñu yaay Aïcha moomu suñu yaay Aïcha waaw suñu waxtaan wa maag suñu magum daara ma leen nekk ca Sokone waaw yàlla ko yàlla yërëm téere yi duñ bind suñu yaay Aïcha dañuy bind Aïcha rek noonu nuy jàngale buñ ci bàyyiwut xel nun tam Aïcha rek la ñuy wax te Aïcha sunu yaay la ni may wax yaa astu nun laa war a wax yaa Aïcha waaw téere yi nag duñu ñi ci ëpp duñu bind sunu yaay Aïcha Aïcha wax mhm. jar naa bàyyi xel yonent bi dencoon ñépp sunu yaay lañ moom nag du suñ pàppa <laughs> moom nag du suñ papa papa muhammad ah déedéet ma kaana muhammadun aba ahadin min waaw papa ak maam ak ñoom seen yooyu su ne Aïcha nee na ñaari xeet yi denc yi nu weesu lislaam bi mu ko fi fekkee dafa def politique jële ko fi lislaam dafa def politique jële ko fii ndax politique gu lislaam ci pénc bu ko pénc xamoon te am ko jëfandikoo ko yu bare bare bari soppeeku sunu pénc mii tey diggante état ak diine su leeroon diggante état ak diine su leeroon am na foo xam ne fii duñ fa tollu bu leerul nag état mooy tuñ tuñu ba mu yàgg rek musal aw dàllam ñëw ci diine ne ko loo xam ci lii mu lijjanti ko état ñibbiwaat déedéet déedéet nañ waxtaani diggante boobu yëg ne lii mooy lii lee mooy lee rekk jàmm ne ñooy ba tax politique yooyu lislaam di def ci pénc moom rekk ko man waaw tabarkàlla moom rekk a ko man ndax eh, formation yi mu koy def xam nga tey meeting yi nga xam ne moom la ñuy wax ci pénc mi naan dana fi am ak du fi am lislaam moom meeting am kenn du ko wax dana fi am ak fi am ndax moom chaque di am na mitin waaw laaj ko sunu magum daar mali Alioune Badara Ndaw ca Kaolack yàlla na ko yàlla sàmm te yokk ko wér te suqali daaraam waaw waaw c'est un imam Euh, plus un imam intellectuel maa <laughs> la ko wax de waaw te ku informé wu la imam tabarkàlla yàlla na ko yàlla yokk wér imam Alioune Badara Ndao mu nga ca Kaolack waaw yoonu ndaw du gaaw <laughs> waaye noo ci yoon wi waaw imaam yu mag yooyu tabarkàlla ñun ñëpp la war di siyaare ndax nooy nooy gone yi <laughs> su ñaay Aysa nee na bi ñoo fekk fi ñaari dencant yee daf ne teg leen ci suuf def politique bu ko fi jëlee nag mu ne bi mu fa jëlee yële ceddo gi dese ñeenti dencante ceddo gi dese ñeenti dencante ñeenti façon yoo xam ne moom la nit ñi di defee mariage waaw ah, waaw waaw suñu ay sama nuy netti borom xam-xam la woon dégg dégg dégg démbi arab yi te man littérature arab te xamu askan waaw soo ko mësaan na nuyu tubarkalla rekk bu la laajee daal lay boole fa nga bokk mais ni sunu góor gële nekkoon ca ca Tuuba góor gi ab du cax waaw bu ñëwee wax ko noo sant dana la wax ni nga demeek diw ak diw ne mu demeek diw ndeysaan léeg-léeg say rongañ di toq ndeysaan yal na ko yàlla yokk yërmande góor gi ab du cax ñeenti xeeti mariage yooyu ba ci jiitu mooy bii ñuy def ci jàkka yi tey bii ñuy def ci jàkka yi tey waaw te itam li may wax ne diggante état diine na leer takk jàkka dangay dégg jigéen ñi ne defuñu dara takku jàkka rek lañ def laay la bu leen ko waxati defuñu dara daal ne takku jàkka lañ def kon takku jàkka du dara ëpp naa wax ngeen baal ma ci ton bi bu leen ko waxati defuñu dara takku jàkka rek lañ def inna lillahi wa inna ilayhi rajiun takku jàkkaay lépp di takku jàkkat mooy lépp bi ñuy def jamono ji mooy góor mooy ngoro góor mooy ngoro ila rajuli ibnata waaw góor mooy ngoro maanaam waxtaan ak góor ci doomam ju jigéen hmm? waaw ci doomam ju jigéen walla waxtaan ak kilifa ci jigéen ju mu yilif waaw waxtaan ak jigéen walla waxtaan ak kilifa ci jigéen ju mu yilif benn kii bàyyi la ci ki ngay labat walla kii du bàyyam waaye kilifa la ci moom boo ko labatee ñu nangul la nga joxe may gu njëkk ñu may la su nee Aïcha ne ne boobu moom baax na moom lañu dese fi mu nekk nii moom la doxal doonte euh, démb ñi ngi ko doon def euh, nee na yonent bi du am complexe gis ne lii ñi ngi ko doon def te baax na mu jël ndax innama bu'istu li utammima la waxoon makaarimal axlaaq waaye su fekkee ne lu lu lu lu defee lu defu te defoo ko nga jàpp ne defuwut loolu ci liñ xajamal penc ci lay doon waaw moo tax complexe wutoon jël xeetu mariage bi waaw nga xam ne moom tey tabaarakallahu waaye fi ne dañ koy def ba noppi nag ñu ne da ngay am certificat de mariage day sànn alun yàlla yërëm ko defee boo maye ba noppi nga def benn benn attestation de mariage ñu yóbbu ko fañ ko yóbbu <laughs> ñu xaw ma légaliser ko ñoom seen yooyu nga am certificat de mariage su ko defee kay àtte ne la barki démb moo <laughs> maa ngi ko doon seetaan barki démb fële ca tribunal ba ndeysaan ca salle sept waaye loo loo loo loo benn jabar walla lu ko ëpp nga ne nga ne benn jabar mu ne ah ki benn jabar àdduna munta dox ba yokk dox ba yokk foofa tëj na ko fa fab caabi ji sànni ca géej bu soxna sii mu yor tasee mu takkaat keneen benn jabar rek bu soxna si faatoo mu am keneen benn jabar rek loolu la code de la famille bi wax ndaw lu métti moo tax góor gu ca dugg am nga problème bu toll ne ñay ndax jamono ji ngay ngoroo ko dem tribunal te te ngay nopp ba nga xam ne lu ñu la wax nga ne waaw waaye boo ca duggee ca ngay dem ba mu yàgg nga bëgg ñaareel coow li nu léegi nag boo ñeent bu jamono doxee ba nga bëgg wàññi bu la neexee wàññi ma ne bu ndaw co code de la bi loolu la wax moo tax ajab Abdul Aziz Al Amin daan ci dox ay tànk yu am solo sunu magum daara ma waaw euh, Babacar Niang PLP la retraite rek ne liggéeyam yëpp ci la koy def liggéey na ci liggéey yu rëy waaye mi ngi ñu denc ba léegi code de la famille ci gisuñu lislaam waaye code famille bi ci pénc mi de loolu lay wax boo cop boo boo boo boo tànnee ne da takk benn jabar yem ca ba baa addunay tukki ci nga yem te sañoo yokk boo nee lu ëpp benn defe naa li ëpp benn moo tudd euh, polygamie waaw polygamie <laughs> suñu waxtaan woon ndeysaan ñoo ñoom Zeynabou Fall ak ñi mel ni ñoom te ñu daje woon fële ca aéroport ndeysaan ñu santoon nu waxtaan wa te imaam Ibrahima jë doon ko jiite waaw alakuli xaal suñu yaa Aysa mi ngi nuy jàngal dencante bi nuy denc tey te jaahiliya doon denc lële ki yàlla yónni woon dindi ko tànn bii xew tey te mooy ku góor mooy dem ci góor gu am doom ju jigéen mu labat ko walla mu dem ci kilifa gu yilif jigéen mu labat ko mu nangul ko mu joxe can ñu may ko mbokk yi benn bind noonu ci nikaax wala aziwaaj bu nu ko dégloo benn yoon ñaar jàpp ñett incha allah da di indi bind bu bees sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii tax a yor seen i kayit bëgg la na firiñ fàncal xibaar yi ci tubaab firiñ fàncal ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo mii di c 3 yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir